dali na jàmm ñoo ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyandoo yéen i kaay gi di réew mi ko di jenxëy du ñu xibaar naan ñu coalition Askan Wi ni ki démb ginnaaw digg bëccëg gi doon nañu janoo ak taskatu xabaar yi ñoom Déthié Fall ak Habib Sy nee nañu nag tension bi nga xam ne moo amoon ci réew mi ba léegi tension baa ngi ci réew mi stabilité amagul ci réew mi ndax ñoom coalition Yewwi Askan Wi nee nañu bëri na ñoo xam ne ñoo ngi applaudir Macky Sall maanaam di ko kañ ci bi nga xam ne jël na ko ne du bokk ci élection yi waaye nag ñooñee na leer ne Macky Sall li nga xam ne moom la ko constitution bi sant loole la Macky Sall jëfee amul leneen loo xam ne moo ci topp waaye nag Macky sal bépp acte boo xam ne posé na ko maanaam ñun waa coalition Yewwi Askan Wi dañ ciy bàyyi xel Habib Sy ci biir journal bi nee na Macky Sall ci boppam dafa am loo xam ne daf ko war xam daf ko war a comprendre ndax organiser a élection ci réewum Sénégal te Ousmane Sonko du ca bokk loolee ci boppam moo munta nekk ndax jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk ci réew mi problème central bi Ousmane Sonko la Girassi Moustapha Girassi ci biir journal bi nee na en tout cas li ambade Sall Macky Sall nee na du candidat waaye nag ñi nga xam ne ñoo am victoire maanaam mooy le peuple sénégalais askanu Sénégal ñoo am am ndama ndax askanu Sénégal ñoo jóg taxaw jàmmarloo ak Macky Sall ba mu dellu ginnaaw ci mbir mi waaye nag émotion yi nga xam ne moo am ci réew a bàyyee Macky Sall nag li nga xam ne moom la ko yoon sant loole la Macky def Birame Souleye Diop ci biir bi daan nay wax ne Macky ci boppam moom leeroon na ko ne su waxee ne candidat la askanu Sénégal ñooy wàcc jaar ci kawam askanu Sénégal ñoo na ko déet loolee moo tax Macky Sall di deltu ginnaaw waaye nag Macky bu nekkee ci mi naan leen awma envie bokk yor yore xëy duñu xibaar naan ñu waa Ziguinchor ñoom nag nee nañu lu jëm ci bokkuk Ousmane Sonko ci élection présidentielle 2024 loolee ak càkkutéef la goo xam ne askanu Sénégal ñoo ko sàkko yéen kay gii di l'info nee na coalition Yewwi ñoom ba léegi ñoo ngi sëkkatal Macky Sall di ko di ko teg pression Macky Sall nag moom leer na ko ne su waxee ne usman Sonko du nekk candidat dakaar du nelaw Sénégal du nelaw te Macky Sall moom taxaw na ne du candidat te dara yënguwu la waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag nee nañu Macky Sall dafa war a bàyyi xel bu baax a baax bis bu taxawee ci réew mi ne Ousmane Sonko doo candidat bu boobaa maanaam Sénégal kenn du nelaw yéenekaay gi du L'Observateur xëy di ñu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi ñoom démb daan nañuy alerter nee nañu Macky Sall nee na du bokk ci élection 2024 waaye nag bu fi nekkee di jéem a attaquer opposition bi danañu riposter te duñu nangu benn yoon muy éliminer Ousmane Sonko ci élection présidentielle 2024 loolee ko nangu tey mënuñu ko nangu lekk yéenekaay gi de Libération Birame Souleye Diop moom nag ma ngi dànkaafoo Birame Souleye Diop ma ngi alerter candidat yi nga xam ne moom la APR maanaam di tànn nee nañu nañu ñu def attention bu baax a baax képp xam ne Macky Sall tànn na la lekkee ci mooma journal bi nee na Birame Souleye Diop daan wax ne en tout lu jëm ci wàllum personnel la lu mën a nekk la yéen a mi ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu wolof nee daw bi ngay ami tànka ñi nga xam ne ñooy waa parti socialiste ñoom nag ginnaaw bi président Macky Sall dogal na du bokk ci élection yi ñoom nag woote nañu ab réunion suba ci alxames yi ñoom na ko maanaam majorité présidentielle dogal bi Macky Sall jël na du bokk ci élection yi loolee mbetteel la ci moo tax jamono ji panique dëgg moo moo am ci bi ndax ñoom leer na leen ne dinañu am ay jafe-jafe yu métte métte ngir na gagné ndax ñoom bi fi Macky Sall yi nekk sax élection yi ñu mujj dem bëri na ci ay localité yoo xam ne Benno Bokk Yaakaar daf ko ñàkk rawatina nag bu dee Macky Sall bokku ca pëcc xoo jamono ji mën wax ne maanaam moo am ginnaaw bi Macky Sall jëlee ab dogal nanu bokk ci élection dogal bi Macky Sall jël la daf cee waroon a waxtaan ak waa benn bokk yaakaar te am na ñu bari ñoo xam ne la ñu ci gis maanaam mbirum trahison maanaam mbirum wor la ñu ci gis manque de respect ak manque de considération mbir i dina jafe lool ci ñi nga xam ne ñooy waa coalition benn bokk yaakaar Assane Samb journaliste analyste politique moo xëy di ko càmbara yéen kaay gi di Direct News xëy di ñu xibaar naan ñu président Macky Sall jamono ji am na lu ko doy sëkk ana nan lay def ba tànn koo xam ne daf koy wuutoo Amadou Ba gars yi ñoo ngi koy tudd lu bare bare waaye nag des na ñeneen ndax ko ci mel ni Abdoulaye Daouda Diallo Aly Ngouille Ndiaye Arouna Dia Mahammed Boun Abdallah Dionne ñi tamit ñoo ngi leen di tudd journal bi di direct news nee na Aly Ngouille Ndiaye maanaam demoon ci guddi gisante ak Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ngir nag ñaan ko ndigal ngir mën a bokk ci yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la waaye nag Macky Sall bu dee tànn bi muy tànn dara baaxu ci maanaam pëccaxoo gu rëy éclatement mooy am na ci biir majorité présidentielle bi yéen kaay gi de la turbine xëy duñu xibaar naan ñu camp présidentiel bi kan mooy nekk seen candidat loolee ab laaj la ñoom waa benn bokk yaakaar kan mooy nekk seen candidat Abdoulaye Daouda Diallo ak Amadou Ba ñoo ngi leen di tudd bu baax a baax baax waaye nag ñaar ñi ñoom ñaar seen bopp neexuwuñu bu dee nag Moustapha Ba ministre bi ñu dénk wàllum finance kookee amul expérience ba pare amul base politique la turbine yéen a kaay mooy wax yéen a kaay gi di enquête Abdoulaye Wilane bu parti socialiste moom nee na jamono ji pare na ngir nag jubóole maanaam famille socialiste yi retrouvailles socialiste Abdoulaye Wilane pare na ngir daal di koy dox maanaam mbooleem ñi nga xam ne ay socialiste la na ngir dajale leen a kaay gi ñu xëy fekk fa Omar Youma moom nag na ne ak xajali ko dina am ci biir Bokk Yaakaar rawatina ci biir APR Thérèse fay moom jamono ji nee nañu ñoom dinañu am ay jafe-jafe ngir nag wut koo xam ne mooy remplacer Macky Sall yéene kaay gi de Le Quotidien nee na Macky Sall juróom-ñeenti weer moo tee nag mu daal di fégal jamono ji am na lu bari loo xam ne moo koy xaar ci juróom-ñeenti weer yi nga xam ne moo ko desee ndax war na tànn koo xam ne moo koy wuutoo ba pare tamit avenir u Benno nan la ko Macky Sall di sàmmee lu jëm ci wàllum bonne gouvernance ak wàllum sécurité yéene kaay gi di Source A nee na ñi nga xam ne ñooy waa APR ñoom Macky Sall tey ji woote nañu ab réunion secrétaire secrétariat exécutif national bu APR tey jii la ñu ko wootee yéenekaay gi di la point xëy fësal ci xët mu njëkk nee na dogal bi nga xam ne Macky Sall jël na ko waa Benno Bokk Yaakaar ñoom accepté nañu ko maanaam ànd nañu ci yéenekaay gi nee na ñoom waa Benno Bokk Yaakaar rafetlu nañ bu baax a baax décision bi nga xam ne Macky Sall jël na ko ndax ñoom nee nañu loolee dafa yokk dayo bi nga xam ne Macky Sall am na ko ma Macky mi nga xam ne moo jël Sénégal teg ko ci yoonu émergence économique ba pare démocratie bi mu bàyyi si aw laaj ci wuyaatoo waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ngi applaudir Macky Sall ci engagement yi nga xam ne jël na ko ngir nag sàmm garantir lu jëm ci wàllum sécurité bi yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi woote ab unité ab bennoo ci seen biir yéen kaay gi de Libération nee na lu jëm ci wàllum jàpp farandoy Ousmane sunk yi di leen di dugal ci kaso bi ba léegi mbir maa ngi mel ni tulleeg maxle ndax démboo am na lu toll ci fukk ak juróom ñoo xam ne man mandat nañ leen dépôt maanaam yóbbu nañu leen si kaso bi mooy ñi nga xam ne tegoon nañ leen loxo cité kër góor gi ñoom Cheikh Omar Bamba Diop yéen kaay gi de Le Quotidien yor yor xëy duñu xibaar naan ñu askan wi nga xam na ne ñooy yeewoo ca commune bu Mbàkke ca sànc Daaru Salaam ñoom nag mere nañu loolu maire bu Mbàkke di galo Galoba ñoom nee nañu maire bii di Galoba dañoo gis si moom ab manque de considération amul lenn loo xam ne andi na ko ni ay njàppandal ngir na génn leen si jafe-jafe yi nga xam ne jamono ji ñoom ñoo ngi koy dundoo ndax ñoom nee nañu amuñu ndox bëri na fa ay jafe-jafe yoo xam ne askan wa ñoo ngi koy dund te gisuñu seen maire bii nga xam ne mooy Galoba nee nañu timit ca poste santé ba bëri na ñoo xam ne dañu fay dem di ay malade waaye dañuy mujjee faalto ay manque de moyen moo fa am ambulance amu fa insécurité total moo am ci sanc Daaru Salaam te ñoom waa sanc Daaru Salaam nee nañu ñoo ngi fay impôt ñoo ngi def lépp waaye maire bi faaliwu leen tey faaliwu leen ëllëg jamono ji ñoom ci ak toroxtaange la ñuy dund yéenekaay gi di sunu làmb nee na xaalis bi nga xam ne Macky Sall joxoon na ko mbër yi jamono ji xaajale na mbër yi nga xam ne ñoo dëkk ca diwaanu Pikine ndax Eumeu Sène ak Sokh jamono jii ñoo ngi yakkante lu mel ni musiba mbambu kumba lu toll ci fukk ak juróom ci million la ñu waroon séddoo yéenekaay gi nee na loole bokk na ci li leen xaajale boo ci yokkee juróomi million yi nga xam ne maire bu Pikine joxoon na leen ko